téléspectateurs yu 2STV mbégte la ñuy am saa su nekk jàkkaarloo ak yéen ci seen émission Marmite du Cœur xam ngeen ne atum ren 100 pour cent sensibilisation la ñu fas yéene def dugg ci askan wi ñaax leen ci ndogal yi nga xam ne moom la kilifa yi jël ngir ñun ñëpp ñu mën a mucc ci ndogal wala ci feebar bi nga xam ne moom moo wàcc ci àdduna bi jamono ji te suñu réew di Sénégal mucc ci muy coronavirus mu nekk feebar boo xamante ni day lore day faate gis nañ ni euh, jamono ji ñu bëri ñàkk nañ ci seen bakkan fii nii ci suñu réew moo tax Marmite du Cœur Alassane ak Moustapha ñëpp xamee leen ci social ñu ne bile yoon nag dañuy dugg ci biir askan wi nga xam ne moom mooy geste barrière yi ndax ñun ñëpp xam nañu ko du ci yem ndax bu ñu waxtaanee ak ñoom ba noppi am na ndimbal loo xam ne moom lañu leen jël kon daal leen koy jagleel jàppale leen ko ngir njaboot gi mun a toog ci biir kër yi ndax xam ni restez chez vous a nekkaat beneen émission ay partenaire lañ yu waa Marmite du Cœur ñëwaat nañ jàpp ci li nga xam ne moom mooy ci liggéey bi lépp nag lenn dong lañ ci jublu mooy daan coronavirus kon ñu dem daal di wutali fi nga xam ne moom mooy fasciné nañ ko faa def léegi léegi. une période tout à fait particulière comme vous le savez et euh, on s'est beaucoup posé de questions mais mais effectivement on a pris le temps de, de s'entourer de toutes nos précautions euh, pour pouvoir euh, mener à bien cette mission avec Marmite du Cœur parce qu'il fallait quand même le faire. Et, euh, et aujourd'hui, donc euh, la, la, la particularité, c'est que bah, ça va bien sûr avoir lieu, mais dans d'autres conditions. Euh, vous imaginez bien qu'il fallait prendre des, des, des, des, petits ajustements pour pouvoir bien distribuer eh ben, ce que l'on peut apporter aux, personnes qui en ont besoin. c'est symbolique pour nous, c'est intéressant et particulièrement fort de suivre les marmites du cœur. Nous l'avons fait l'année dernière avec brio, nous en étions ravis. Euh, eh c'est bien sympa que l'on puisse Alors il y a énormément de mesures qui ont été mises en place. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a un petit peu de retard, c'est parce qu'il fallait ajuster bien sûr euh, ces mesures. Il est important de les, de les, de les resignaler dès qu'on peut, euh, euh, même si c'est répétitif et si c'est rébarbatif. Euh, en tout cas, signalons-le qu'il faut bien sûr garder cette distance, qu'il faut gérer cette, cette promiscuité que l'on a tellement souvent chez nous au Sénégal. Et, et cette promiscuité, on a, on, on a, des difficultés à justement ne plus l'accepter. Mais il faut que pendant cette période-là particulièrement, l'on puisse imaginer que la distanciation est un des éléments clés pour euh, euh, poursuivre euh, notre quotidien. Particulièrement pendant cette période de, Ramadan, nous le savons bien. Nous ferons en tout cas ce qui est dans notre possible pour pouvoir accompagner les marmites du cœur. Aujourd'hui, vous le voyez, j'ai même mon gel avec moi. Il est préférable, bien sûr, de se laver les mains. On sait très bien que le savon est quelque chose tout à fait particulier. Eh quand on a le gel, on, on, on, se fait son petit, son, son, son petit geste euh, euh, symbolique de gel. Mais il est important d'avoir toujours ces, ces, ces, petits gestes de, de, de, propreté. Donc je sais que cette année, euh, la particularité, c'est que l'on se déplace, on va auprès des familles, on garde toujours la notion de distanciation avec les familles, mais euh, il y a bien sûr tous les dons nécessaires Euh, et les paniers qui accompagnent ce, ce bon ramadan. C'est notre façon aussi de signifier qu'on est en ramadan et que euh, ben, le ramadan, c'est euh, pour tout, notre Sénégal une force d'union. Et c'est dans cette force-là que l'on va combattre le, le Covid qui sévit actuellement au Sénégal. daara jaa ngi Kër Massar Castor Satrak ñu tuddee ko daara Cheikh na Ahmed Tidiane Chérif rabiyallahu taala anhu sëriñu daara ji mu ngi tudd Mor Thiam Marmite du Cœur yàgg nañ ko suivre bu koor jotee fépp lañ leen di suivre télé yi dëkk fu ne ngeen di dem Marmite du Cœur kenn amul loo leen faye su ngeen ñëwul woon fii sax nit ñi xam nañ leen ndax seen jëf ju baax ji ngeen di def yàlla rek moo leen mën a fay en plus na ngeen ñëw ci loo xamante ni lu toll ni daara la at yore daara ni mu mettee taalibe yi du ñu yalwaani demul fenn gis nga condition yu ñu nekk benn cin la ñuy teg fi ci kër gi ñoom ñëpp ñooy bokk di lekk ngeen liggéeyal yàlla lii ngeen di def da ngeen di liggéeyal yàlla mais da ngeen ko gën a liggéeyal nag parce que daara yi ñoo ko gën soxla waa mi du kër yéen ci da ngeen di avancer rek du ngeen dellu gannaaw mukk si àddina te lépp lu ngeen yóotu mu ndax li ngeen di def dafa dëggu ci parce que ça fait des années yàlla na ngeen yokk ba yëg ko gis nañ seen euh, taxawaay euh, si euh, jàppale yi ngeen jàppale daara ji ak accompagnement bi ngeen am ak ñun si période bi ñu nekk nii mu nekk période bu difficile si ñëpp nekk période bu difficile surtout si daara yi donc ñu ngi leen ciy gërëm bu baax di leen euh, remercier bu baax a baax euh, di profiter aussi si occasion bi euh, di ñax suñu mbokk sëriñ daara yi ñoom aussi ñu gën a defara taxawaay yi pour nga xam ne li nga xam ne moom la ñu jànkonteel muy feebar bi suñu borom musal ñu L'armée de cœur agsi nañ ci sànq andi fi seen i ndimbal ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di rafetlu seen taxawaay di leen wax ne yàlla na leen yàlla jàppale gis nañ seen taxawaay bu baax a baax a baax lii lu am solo la gis nañ ko bu baax gërëm nañ ko ñu ngi ñaan yàlla ñu yor ndimbal mu dimbale leen bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam daara moom ku ko dimbale rek yokk nga ko encouragé ngeen ñu gunge ngeen ñu daara ji ñaari raxasukaay ñu ngi fi benn bu ci ne mu ngi ak ànd na ak ordre sel ak euh, saaboob yëpp a fi amul benn waxtu boo xam ne dana jot bala ñuy lekk du dañuy def dañuy def setal ba pare ci ñaax it suñu bokk seen daara yëpp ñu fekkee di def noonu di fekkee di taxaw xale yi parce que ñun ñooy seen yaay ñooy seen baay tey ñaan yàlla yàlla jële fi feebar bi ba delu ci ay kiyam ndax ñëpp a ñun ñoo ngi toog kenn mënatu a génne ndax ñemewu ñoo dem fenn te dañ doon liggéey di dem di ñëw yal na yàlla yóbbu feebar bi. koor ku jox nit ci lu mu lekk rek def nga ci lu rafet kon ñu ngi leen ci sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yal na leen yàlla jàppale ci barke Seydina Mohamed lu ngeen ci ñàkk yal na leen yàlla wutal lu ko raw. yàgg naa leen seetaan ci télé liggéey rafet ma xam ne yéen daal nitu yàlla ngeen ndax lii ngeen def ni ku am yërmande rek moo koy def ci nit maa ngi leen sant di leen gërëm ndax nit ñu baax ngeen lii ngeen def nii euh, nitu yàlla rek moo koy def ndax fekk ku sonn nga jàppale ko fekk ku am nga jàppale ko fekk ku doole nga jàppale ko yàlla kooku nitu yàlla rek moo ko mën di leen wax ne yéen yàlla ngeen dimbale ni ngeen def nii man noonu lay def lu ma am rek def ko ci ñoom pour jël téere yàlla bi sotti ko seen kaw lii rek mooy sama liggéey kon keneen ku ñëw fekk ma ci na ma lii dama la koy dimbalee damay sant yàlla ci loolu ñaanal la yàlla mi nga xam ne saa moo la xiir ba nga def ko mu xiir la nga gën a mënaat lu ëpp loolu tamit ndax lu baax loo ci def rek du doy fii boo ñëwee ci kër gi da nga xam ne fii ki fi nekk wax dëgg yàlla bàyyiwut boppam te bàyyiwut xale yi itam ci nu leen neex rek mel wala benn tilim baag yooyu yëpp ñu ngi ci góorgóorlu yéen waa marmite du cœur bismillah ñun waa daara yaay Amina ñoo leen di dalal jàmm waa marmite bi du kër liggéey bi ngeen di liggéey ci biir askan bi euh, gis nañ ko ndax bu leen neexoon li ngeen yor ngeen dugal ko feneen wala ngeen def ko ci seen i poste te bu boobaa it kenn du leen mën a wax dara waaye nii ngeen def ndax askan wi ngeen ko daan defal di togg di joxe ndax nit ku woor ba ngoon nga fexe ba dogal ko loolu tuyaa bi ji ci ne kenn mënu laa wax ni mu toll. Alsandour turam laay maa ngi koy door a gis tey Moustapha maa ngi koy door a gis ci télé bi la ñuy door a gis te it jëf yi ngeen jëf yëpp gis nañ ko jëf yi ngeen jëf yëpp gis nañ kon dañuy ñaan. li ngeen man ren yal na ngeen ko mën feebar bii nga xam ne moo fi nekk yàlla na ko fi sunu borom jële ci gën ngaa rafet tey ñaan yàlla mboolem askan wi nañu euh, topp woy kër docteur yi takk masque tey raxasoo saabu ak sel bi tey gàttal tànk yi ci lu mënta ñàkk. buñ ne marmite du cœur nag ñu bëri xam nañu Alassane Ndour xam nañ Moustapha ci marmite du cœur à travers les télé mais tey jii. man damay am kontante bu baax di leen recevoir. ñëw ngeen fi ngeen ko war a defee ndax commune Kër Massar commune bu spéciale la par rapport a commune yi nga xam ne dañu nekk ci biir région de Dakar commune bu rëy la waaye commune bu bëri nit la tey jii boo xoolee rek li fi nekk ci ay daara man nañ presque 450 daara dañ donc loolu dafa yaatu loolu nag eh, dañ ciy lott lool ñu gisee koo xam ne ñëw na man mi di kër ñëw pour di ñu si dimbale. loolu vraiment dañ ci am bras ouvert kontaan ci sant si bu baax eh, yàlla mi ngi ñuy dimbale bu baax ñu ngi ciy góorgóorlu état mu ñu si jàppale ak partenaires yi benn yéen te yaakaar naa loolu su continuer rek day tax ñu gën a mën a daan lii nga xam ne moom lañuy xeex muy Covid 19. ndax xam ngeen temps yële déggoon ngeen fi Kër Massar ay cas yu bari amoon fi lu mat cinq cas ñu am 2 jékki-jékki am 5 coow li bëri trop mais quand géré nañ ko ba tey jii may wax ak yéen am nañu amatuñu benn cas depuis vendredi ba léegi te loolu dañuy ñaan yàlla mu konne te pour mu konne ay mesures rek mooy tax mu mën a konne mooy lan sensibiliser nit ñi eh, ñu respecter mesures d'hygiène yi leen wax distanciation sociale bi di takk masque di raxasu di bañ ay rassemblement toog seen kër bu ñu warul doxi dara ñu bañ a génn toog seen kër toog seen kër boobu daf ci am solo te loolu ngeen ñëw tey di def daf cee am solo ci jàppale nit ñi pour ñu toog seen kër kon yéen yéen a ngi bay seen waar ci xeex bi ñu ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm di rafetlu nag jëf ji rafetlu naa ko bu baax baax baax ndax wax dëgg yàlla yàgg nañ ci daara waaye ñoo ngi koy doog a gis waaw te daanañu bind lu bëree bari nag ndax ñun euh, parcelle dañu nekkoon unité 26 yàgg nañ fa. di leen ñaanal yéen ñëpp tamit euh, jëf ji ngeen daje ci ak ngërëmul suñu borom subhanahu wa taala bi bi ñu yegee ne feebar bi am am na fi rek li ma njëkk def moom ubbi benn groupe whatsapp dugal ci waajuru ndongo yëpp ne leen bu kenn ñëwati ci daara rek man loolu laa njëkk a def. li tax ñu def ko nag mooy ay xale lañ te xale dañ ko war a sàmm. xale des ko war a sàmm moo tax lama ma njëkk wax waajur ndongo yi mooy xale xamul nu muy moytoo comme xale xamul nu muy moytoo nag li ma leen di ñaan mooy ngeen toog ba yàlla defaat jàmm dellu si ci réew mi ñu delluwaat ca ñu nekkoon. waa li may soññee sëñ daar yëpp nag ñu gën a farlu ci aar xale yi ci jàngal leen ci yar leen. après une journée très chargée mën nañoo wax mission accomplie pour Keur Massar ndax li nga xam ne. moom mooy sunu mbëbët daal nañ koy def fu ci nekk euh, daal nañ fay dugg ci koñ yi ci gox goxaan yi dem nañ fi nga xamante ne moom mooy ci daara yi ndax loolu moom moo tax a jóg Marmite du Cor saison 2020 euh, bii nii liñ ci jublu mooy daal di sensibiliser ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk waaye it baaxee leen ay ndimbal ngir ñu mun ko jàppale seen bopp xam nañ ni dañoo nekk ci concept restez chez vous Alassane gis nañ ba ñu ñëwee fii nga xamante ni moom mooy Kër Massar mu nekk benn gox boo xam ne daanaka waa Marmite du Cœur miin nañ ko loolu lan moo tax saa yu ngeen duggee ci koñ yi rek euh, bu ngeen gisee benn kër dafa mel ni daa am lu leen di euh, piqué ngeen ne non dañuy taxaw fii dugg ci kër gi def fa benn action waaw salaamaaleykum salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa adduna bi yëpp waaw dafa nekk euh, geste bu bu ñu amul solo parce que tey euh, euh, dañ ne woon dañuy def priorité au daara donc ren loolu la ñu waxoon comme encore une fois état du Sénégal dafa jëloon option jox les les denrées jox ko jox ko ménage ménages jox ko les donc autour du Sénégal donc comme ñun tamit dañu toog di xalaat di xool yan stratégie dañuy dañuy dañuy. dañuy jël pour au moins être utile par rapport à la société ñu ne woon dañ koy dañ koy dañ koy yóbbu ci daara yi ce euh, sera moins moins moins problématique au niveau des choix et en même temps aussi euh, daara yi dañu bokk ci euh, ci société bi donc loolu moo taxoon ñu orienté wu sunu sunu sunu communication ci ci foofu noonu pour être utile à à cette couche vulnérable qui son les qui sont donc euh, bu loolu weesoo tamit euh, dañoo da ngeen gis ne tamit eh, saa yu ñu demee ci ci daara yi dinañu ñu jox ay ay yenn famille yoo xamante ne ne c'est des familles aujourd'hui euh, vraiment qui vivent la précarité parce que ba ñu demee keroog ginnaaw raay gis nañ ne ñoo ñu noonu dañoo dëkk ci ci ci ci ci ndox bi donc ba ñuy joxee daara yi ñu geesu gis loolu suñu xol tooy dañ ne ne ñii tamit yelloon nañu li nga xamante ne moom la ñuy joxe donc lu am solo la donc moo tax Marmite du Cœur def geste boobu donc euh, dinañ ko gënal di faral di def parce que fépp fu ñuy dem tamit euh, dinañu improviser rek am nañu feuille de am na euh, feuille de route tamit mais tamit du ci yàq dara parce que def nañ ko fi ñu ko war a def loolu tamit lu am solo la donc du bu weesoo loolu tamit dañuy continuer ci sensibilisation bi parce que du nit ki da koy jox lekk rek bàyyi ko mu dem doo ko joxe lekk tamit da koy def da nga koy wax da nga waxtaan ak moom ci sensibilisation bi ci geste yi nga xamante ne mooy les gestes barrières comme ni ko état bi waxee comme ni ko euh, ni ñu koy waxee ci sax ministère de la santé waxee donc euh, di leen di expliquer le port du du gant bu ñu demee ci daara tamit dinañ leen jox ay gants. gis nañu aussi partenaires yi ñoom ils se sont approprié le projet da leen wax rek ñu ne dañ ci ànd ak yéen Orange depuis le début ñu ngi ànd ak ñun te aussi gis nañ euh, la participation de Kirène. waaw waaw non ñoom ñoom vraiment macha allah wax dëgg yàlla donc sponsors yi ñoom mënuñ leen wax dara lu dul di leen remercier chaque année. encore une fois luñ ko Moustapha defaluñ ko Alassane Ndour population du Sénégal lañ ko defal wax dëgg yàlla donc chaque année ñu jël seen ay béné jël seen ay bénéfices jël si ay seen i dugal ko ci euh, ci ci marmite du kër bi à travers les populations démunies loolu dañ koy rafetlu Orange seen gestes yi vraiment macha allah dañ koy rafet rafetlu dañ leen di remercier bu baax a baax a baax seen gestes yi gis nañ tamit ki ren dugg nañu tamit tey macha allah indi nañ seen participation mais jox nañu ndox yu bëri ils nous ont fait un don de mille litres de pratiquement pratiquement donc loolu dafa dafa dafa yéeme lu rëy la su ñun donc dañ leen di remercier bu paax ci si suñu collaboration ak ñoom di ñaan yàlla collaboration bi di gën a law ndax bu lawee rek mooy dina egg fu mu war a egg mooy les les couches vulnérables. dañuy dellu euh, remercier ay nit yoo xamante ni dañu participer ci journée bi à l'image de Tayrou Tayrou. Euh, Euh, benn chef religieux boo xamante ni il nous a beaucoup aidé sur le choix des dara donc euh, je voudrais aussi remercier euh, des personnalités du du football à l'image de Bafé Gomis qui est, qui est un ami qui est un frère donc je pense que tout le monde connaît notre notre relation depuis depuis l'AS Saint-Étienne donc qui a quand même participé aussi à la réussite de, de, de, nos événements et souvent qui participe souvent à la réussite de nos événements euh, associatifs. Donc vraiment, on, on, le remercie du fond du cœur. Depuis Lyon, là où il est, confiné, donc il a quand même euh, réussi à, à nous faire un don pour vraiment participer à, à cet événement-là. Euh, je remercie aussi Salif Diaw, il fait beaucoup de bien. Donc on, le, on en profite pour le remercier vraiment pour euh, son soutien, pour son, son, son don qu'il nous, qu nous a fait. Également, je remercie Monsieur le maire. Monsieur le maire, merci beaucoup pour votre engagement. Donc il a passé la journée avec nous, euh, aussi euh, à travers Monsieur Zeynou. Zeynou qui est un grand frère depuis Lyon. Donc je le remercie aussi euh, vraiment ci taxawaayam. ñi ngi ñaanal Sénégal jàmm am fi Sénégal yal na fi jàmm am nañu jéemaat defaruwaat euh, defaruwaat taxawaay defaruwaat laxasaay defaruwaat vraiment. toogaay vraiment ñu war nañu gën a xoolaat suñu bopp daal. merci beaucoup euh, Alassane euh, gis ngeen ñëw na ci li nga xamante ne moom mooy volet bu njëkk bi di distribution des denrées ci daara yi mais aussi ci euh, ay familles démunies waaye dafa am beneen volet boo xam ne dafa am solo loolu ci Marmite du Cœur bi ndax dañoo ne sensibilisation. waaye dañoo gis Moustapha ay actes yoo xamante ni ça n'honore pas Sénégal kilifa dañoo jël ay mesures. yi ñu ne euh, na ko ñëpp respecté waaye gis nañ ni euh, am na sénégal yoo xamante ni quoi qu'on puisse dire ñoom euh, wàccewuñu ak li nga xamante ne moom mooy ndogal yooyu ba tey jii bu ñu déggee ni feebar bii di coronavirus mu ngi law ci yeneen région peut-être manquement wu citoyen yooyu ñoom ñoo ko waral tey jii lan ngay wax citoyen yooyu noonu waaw oh, laasana salaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp téléspectateur nga ñuy seetaan ci biir réew mi wala ci biti réew mi ñu yëkkatiwaat ay kàddu li nga wax dafa am solo mais dafa am lu mat a bàyyi xel Euh, devoir dafa am solo lii mooy sa devoir lii mooy sa obligation dafa am solo donc doomu aadama tant que xamoo xamoo lan mooy sa devoir xamoo lan mooy sa obligation manaam xàmmewoo wala ràññeewoo da ngay am problème parce que ràññee ak xàmmee du benn te pourtant ñaari baat la mais li leen wutale dafa bari parce que ki xàmmee te ràññeewul day am problème mais ki ràññee tamit te xàmmeewul day am problème donc il faut que suñu borom dimbali ñu ba ñu mën a ràññee mën a xàmmee parce que euh, damay wax ne euh, yenn yi sax du sax sago bokkul ci responsabilité doomu aadama nga dëkk ci gox parce que responsabilité mi ngi tàmbalee yow ak sa waa kër yow ak sa waa quartier yow ak sa waa commune wala sa département mais yow ak Sénégal parce que tey kenn ku ci nekk tey mën nga tu es garant de du ton prochain keneen ki nekk sawet tey man Moustapha war naa mën a sàmm sama bopp sàmmaale Laasana sàmmaale Alassane sàmmaale keneen ak keneen na geste barrière yi bu ko nit ñi respecté pic yi ngay dégg ci yeneen i réew yi mën na bañ a am Sénégal yàlla nañu suñu borom moom mi nga xam ne moom lépp rek moom la lépp ci moom lay wëlbatikuwaat mën nañu suturaal dimbali ñu waaye wolof Njaay day wax ndimbal na sa fekk loxoy borom autorités yi wax nañ état wax na ñi nekk kër docteur wax nañu lillaahi wa rasuul yi sénégalais yi dañu war a am am am delloo am ay am xel ci seen bopp xam ne lii déjà balaa muy lor keneen ki yow lay njëkk lor parce que tey boo confiné wul nekkoo en tënkoo sa bopp di nga lor sa njaboot di nga lor say dëkkandoo te dëkkandoo àq la Sénégal amatul woon cas importé léegi amoon na amaan nañ ci benn warul du yoon du yoon waratu parce que ñun ka communautaire yi dañu nar a sonal parce que ñun ñun noonu la ñuy dundee sénégalais bokk la xam kaay ñu naan ataaya kaay ñu añ kaay ñu deseeru kaay ñu loolu la xam parce que ci loolu la ñu xam wante cas waratuñu am ka contact yi dafa war a wàññeeku gis nañ léegi léegi ni mu toll euh, cas communautaire yi daf ñuy jaaxal ñu ñuy tiital léegi on parle de six cent et quelques cas c'est te lii xew ci yeneen i réew yi ñu yàlla mu xew kon na sénégalais bu nekk jël ay responsabilités état wax na loolu rek la mën le le corps médical sensibiliser nañ loolu rek la ñu mën communicants yi tele yi foo dégg ñun tey gis nañ ñëw nañ Kër Massar mais y a eu des manquements boo ñëwee rond Kër Massar da ngay gis gars yi di groupe di waxtaan loolu manquement la ni mu amee lu baax am Kër Massar ay doomu Kër Massar yoo xam ne ñu ngi takk seen masque fu ne noonu ngay gisee ci benn rond-point groupe ànd. mel na ñoom yëguñu sax ne jàngoro ji dafa réel dafa am te mi ngi fi te day lore lillaay war a sóoli lii appel la bu waa Marmite du Cœur di def parce que ñun ñu ngi ci terrain bi bés bu yàlla sàkk oto yaa ngi ci mbedd mi ñu ngi daw ñu ngi gis di xew ci banlieue yi suñu rôle de sentinelle faaw ñu wax ko na nañu wax sénégalais yi ne nañu wàññi nañu wàññi jaxasoo bi nañu wàññi nuyoo yi nañu yaay euh, laamisoo bi te xam ne feebar bi dafa réel nañu jël seen ay distance takk seen masque léegi sol masque dafa obligatoire nag ku nekk takk sa masque aar sa bopp aar ñi nekk sa wet yëpp. merci beaucoup Moustapha je pense que kaddu yi leer na loolu ku la ne sangul sa taar la bëgg moo tax nag kaddu gi euh, du daal di bëri suñu combat lenn rek la def sensibilisation boo xamante ne dina tabbi ci nopp ku nekk ngir li nga xamante ne moom la kilifa di jël comme ay mesures mu mun a euh, jur ay résultat yu concret waaye résultat yooyu day fekk ñi nga xam ne ñoom ñooy askan wi daal ciy jàpp kon Marmite du Cor la woon 100 pour cent sensibilisation di leen wax naan restez chez vous. asalaamaaleykum waa Marmite du yow Moustapha ak Alsaan maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm te lii ngeen di def ana ca kanam li ngeen man ren bu déwénee yàlla ngeen man lu ko ëpp ñëpp kontaan nañ ci yow su ngeen xamoon lii ngeen yebbi fii tey bi ngeen ko fi yebbeet liñ jànkoonteel kon yéen kenn ñaanal li leen gën a ñaanal seen bopp ndax kuy def lu baax yaa ñaanal sa bopp yal na yàlla fay leen na yàlla may leen fan wu gudd ànd ak wér fan wu gudd ànd ak sutura fan wu gudd ànd ak teranga fan wu gudd ànd ak mujj rafet fan wu gudd tegu ci siraatal mustaqim lépp lu ngeen man ren bu déwénee yàlla ngeen man bu ko bu dee benn ngeen man ren bu déwénee yàlla ngeen man fukk bu ngeen mënee fukk yàlla ngeen mën a junni ci daraja sidina Muhammad allahumma ihdina fi man hadayta wa aafina fi man aafayta wa tawallana fi man tawallayta wa barik lana fi ma aatayta wa qina wasrif anna sharra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yaqda alayka innahu la yudillu man waalayta ولا يعز من آديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد صلى الله تعالى وسلم فيا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نجينا من مرض كورونا بجاه سيدنا صلى الله عليه وسلم فيا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نجينا من مرض كورونا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نجينا من مرض كورونا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام والسلام والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يعلم يعافيك.